Yéli uh, Coulibaly ñu lay ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Elisa Diatta maa ngi lay fay. voilà yow nga jiite ngay secrétaire général national uh, général syndicat national des travailleurs de l'hydraulique tey ñu gis ne seen ministre jàkkaarloo woon na am na ñaari fan ak léegi euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy député yi bañ ca jógee ñu daal di voté euh, budget bi. ëpp na 447 milliards pour atu 2022 tey ji sa commentaire déjà ci xaalis googu nga xam ne jël nañ ko tey xëpp ko wàllum ndox meek assainissement waaw ñun bi ñu déggee loolu ci suma tur ak turu liggéeykat yi bi ñu yëngu ci hydraulique yëpp dañu kii hmm. parce que bu ñu déggee ñu ne budget bi nekk na quarante quatre cent quarante sept milliards ak tuuti hmm. ñun ñëpp dañu daal di tiit parce que boobu fekk na ñu sonn trop ci àll bi di xalaat xaalis bi ñu watal hydraulique fan lay jaar te hydraulique boo dawalee oto ba yàlla def wala nga feebar sa njaboot feebar mënoo faju mm-hmm. amoo IPM amuñu IPRES du caisse de sécurité sociale mm-hmm. retraité yi amuñu indemnité de a à la retraite amuñu pension nga liggéey ci kër trente cinq ans ba dem retraite mm-hmm. amoo indemnité de départ amuloo pension euh, ancienneté amu fa amul avancement amul indemnité de déplacement kenn du fay heure supplémentaire kenn du fay habillement kenn du fay prime amul pharmacie amul indemnité de logement amul indemnité de dara dara dara dara amu fa ñu dégg ne quarante sept milliards quatre cent quarante sept milliards génn na mhm. loolu kum daloon tam di nga tiit di nga jaaxle ci sunu nguur gi fan lay def xaalis boobu d'accord yéen ëpp na ci comparé ak li gis ci terrain bi ñun duñ ko gis parce que terrain parce que li ma la. boo waxee loolu dina ma jaaxal parce que moom nee na euh, secteur hydraulique bu rural euh, précisément li nga xam ne yéen moom mooy seen secteur 72 forages la ñu réalisé te bokk na ci yu bees 69. ndax loolu dafa tuuti bu bu fekkee ne am nañu 72 yu ñu yu ñu réalisé 69 yu bees la àll bi ñu ngi àll bi sonn nañu ci mar. lan la lan nga lan ngeen constaté lan lañ mën a jàpp justement ci wàllum ndox ci gox goxaan nit ñi dañu amul ndox mu ñu naan état bi dimbaliwu leen état bi dafa war wàññi train de vie am gasal ñu ay forage ñuy naan parce forage amul ci yenn gox forage amul ci yenn gox yi sama mbokk pël yi da ngay gis ñu takk sareet def ci ay chambre à ay xale pël yu ndaw moom la ñuy jël yàpp ko di dem di uti ndox ay quinze huit kilomètres la ñuy def boo leen xoolee sareet dafay daw ñun dañuy def mission ak yan gox justement la ñu mën a dans le Ferlo dans le Tamba dans tous les secteurs dans toutes les régions y a des problèmes d'eau dans toutes les régions y a des problèmes d'eau ñun moo tax man financière bi ñu tudd ci ñun dañuy jaaxle ñun état bi fan lay dugal quarante sept ci àll bi pour nit ñi ñii liggéey jëriñoo wuñ ko tey boo demoon hydraulique nga dugg ci atelier yi nga visiter sa yaram day daw buñ la ñi ñii c'est de l'état doo ko gëm dara topp leen amuñu dara administration sénégalaise hydraulique ñoom ñoo ci gën a sonn ñoom ñoo ci gën a sonn état bi defalu leen dara amul dara lu ñu mën a teg baaraam ne état bi moo ko defal waa hydraulique loolu musul am. ndax ci dégg-dégg euh, rafet na tey vingt-et-unième siècle ñu ne Sénégal am nay gox yi nga xam ne am ndox mu baax. gis naa dëkk boo xam doon na doon na jafe-jafe man gis naa dans le Kaffrine dëkk boo xam ne seen forage bu mu baaxee dañ doon jël seen déchet mbalit bi di ko def ci teen bi mais bi ñu demee ba forage bi pan dañu wow hydraulique bu Kaffrine dañu génn mbalit ni nettoyé ndox bi ñu ngi koy naan ndax mat maa ngi photo yi yëpp suma donc àll bi sonn nañu nguur gi moo war a wàññi train de vie pour dimbali àll bi waa àll bi amuñu lu ñu naan mais ñu nommé le directeur ñu nommé le ministre nga nekk ci bureau climatisé yi xamoo réalité bi am ci àll bi dëgg ñun ñuy liggéey ñun ñoo am problème waa àll bi ñoom ñoo gën a am problème dañ ngay ci àll bi yor sa oto da ngay mujjee taxaw di may xale pël yi ndox bi ñu pour utiliser ko dañ koy àll parce que mënoo gis sa moromu jullit amul ndox moom naan nga a de sérieux problème Sénégal dañuy dugg ci àll bi ñu xool mais dans les voitures climatisées dans les ci àll bi àll bi trop état bi nguur gi dafa war a wàññi train de vie am alors que secteur bu nekk am na budget de fonds de roulement ah, bi nga xam ne war naa doxal Euh, secteur am ndax da ngeen jàpp ne tey jii euh, nekkuñu di dugal xaalis bi fu mu war. non xaalis bi demul xaalis bi demul fu mu waroon dem parce que bu fekkoon ne mi ngi di ministère de l'hydraulique dem fi muy da war a dem je pense que ñëppay liggéey la xool. <laughs> loo bëgg a wax foofu audit. xaalis bi egsiwul ci liggéeykat yi xaalis bi demul fu mu waroon dem egsiwul ci liggéeykat yi parce que bu fekkee yow yaa ngi liggéey amuloo benn indemnité. boo feebaree mënuloo faju mm-hmm. yàlla tere tere boo doon liggéey nga accidenté et ñoom mënuñu la jël en charge parce que amuloo IPM mm-hmm. amul IPRES amul indemnité de nga liggéey ba retraité jot sa pension amul nga dem ñu ne la amul indemnité de à la retraite am nañu dem depuis deux mille seize deux mille dix sept am ñu un à la retraite ñu ngi toog di ci xaar ça pose problème mm-hmm. cet agent ba mu ci agent de liggéey yëguñu ko pour sànn forage aussi c'est peu c'est peu c'est bi dimbaliwul waa àll bi dimbaliwul waa hydraulique bi ñuy yëngu ci ndox mi. tey monsieur Coulibaly ngeen gis seen ministre jàkkaarloog député yi di wax ci réalisation yi euh, bam ca pare euh, jokkoo nañu ngeen ma euh, dafa am li ngeen dégg ci ay kàddoom yu waroog li am ci comme lan noonu. waaw ci bu ñëwee ci côté personnel bi. Mhm. dañu dégg mu ne personnel bi dañ leen recruter en deux mille quatorze mhm. euh, c'est pas un recrutement dafa nekk personnel boo xam ne dañ leen doon liggéeyloo ci ay contrat fictif juróom-ñeenti at personnel boobu ñoom ñoo toog ba mu yàgg ñu regroupé wu ñu ñu xoolee contra xam ne contrat yi baaxul directeur yi ñu fi doon nommé yëpp ci ay kayit yu bon lañ doon kayit yu baaxul lañ doon liggéeyloo xale yi bi ñu consulté suñu avocat le cabinet Wan et ñu ne ñu c'est des contrats fictifs ci lañ déposé requête tribunal mhm. hors classe de Dakar mu premier jugement bi nekk na le vingt sept février deux mille treize mhm. ci lañ àtte tribunal hors classe de Dakar direction de l'hydraulique def appel bi demee cour d'appel chambre sociale bu cour d'appel attewaat le vingt quatre neuvième mois deux mille quatorze ci lañ am ay contrat indéterminé ak quarante cinq millions yu ñu dédommagé donc c'est la justice c'est la justice dans nos droits mhm. ñoom nag ñoo jël seen mbokku y' a aussi les agents de l' état eux ils avaient deux ans amoon na ñaari at bi OFOR ñëwee mhm. ñooñu ay agents de l' état lañu bi OFOR ñëwee amoon nañu ñaari at pour dem OFOR wala ñu toog hydraulique dañu waroon bind waaye ministre Mansour Faye bi mu nekkee classé na Sakho mhm. ba ñooñu dem OFOR bañ génne benn arrêté décret bi président son excellence Macky Sall moo ko signé woon le 24 avril 2014. pour ñu choisir ndax dañuy dem effort wala dañuy toog waaye Mansour Faye bi mu ñëwee le ministre Mansour Faye mhm. le douze février deux mille quinze moom it mu génn benn arrêté décret bi président bi signé woon ak premier ministre wax ne lii Mansour Faye daf ko génn génn ak benn arrêté parce que boobu moom ak laasana seen intérêt lañ doon xool forcé nit ñi réforme bi jàll na mais y a un parce que li daal liggéeykat yi nii yëpp bu réforme bi ñëwee la am parce metti na quand est-ce que du dañ doon structuré waat. effort bi ngay def plutôt. ndox bu nekk loo xam ne dañ ciy dugg di tâtonner parce que réforme bi bi ñu xoolee dafa am ay tâtonnement parce que ingénieurs yi fi ñëwoon def réforme bi dañ defar benn document def xayma def audit def toutes les régions def tous les villages mm-hmm. jël kayit jox ko Mansour Faye bi ñu ko maa joxee Mansour Faye arrangé wu ko laata na saako xamul réforme xamul effort ñu jël ko jox ko bi mu ñëwee intérêt la doon xool ñu xool ne aussi réforme bi dafa am ay éléments dañuy tàttane dañuy tàttane parce que ministre yi ñu fi indi ak directeur yi ñuy jox euh, réforme bi ñu yor secteur bi xamuñu secteur bi xamuñu ko. loo bëgg a wax foofu ñi maîtriser ndox joxuñu leen ko kon dañ fi andi ñi nga xam ne rek dañ leen faa war a teg. Euh, tey boo xoolee am na forum de mondial forum mondial de l'eau bi fi am en deux mille en en mille vingt deux. ñu koy waaj waaw. ce forum boobu est piloté par Ablaye Sène c'est un ingénieur de l'école polytechnique de Thiès il était le nekkoon directeur directeur hydraulique mu nekkee directeur hydraulique bureau lay taw forage wu Malicounda Bambara mu ne la forage boobu ñu ngi ko defar en telle année boo demee profondeur u nab bi lii la moteur ba fa nekk lii la te c'est un directeur de ça mm-hmm. c'est technicien mais loolu la hydraulique xam poste technique la directeur bi ñu nomeel barki démb ñun bi ñu ñëwee di ko wax sunu problème yi moom mu ngi tal campagne am pour nekk yow su liggéeykat amul sax lu ñu lekk ñu di la lekk pour nga toog wax ak ñoom yow yaa ngi di pare campagne pour nekk maire mën Médina Ndiabe. et justement justement ci lettre boobu ngeen daal di bind benn bataaxal jox ko seen ministre ñu bëggoon a xam lan. ci ay ponk am na yi nga fi jot a lim euh, ngeen daal di lim ci boobule bataaxal bi ngeen jébbal seen ministre euh, Serigne Mbaye Thiam bataaxal bi ñu ko jébbal dañ ko xamal ne ko liggéeykat yi sonn nañ sonn nañu amuñu IPM bu ñu feebaree du ñu faje mm-hmm. amuñu IPRES amuñu caisse de sécurité sociale deux mille douze la ñu gëj a xaalis bi dagg xaalis deux mille douze ba ñu ngi dagg te duñ ko verse deux mille vingt et un mu nekk neuf mm-hmm. juróom-ñeenti at ñu ngi leen dagg weer bu dee six mille six cent soixante quinze te verse guñ ko IPRES bu say point bu ma boo demee doo am pension mm-hmm. nit ki rafet na da liggéey ba retraite service doon liggéey mooy génn benn indemnité jox la mooy indemnité de départ à la yoon la droit la yoon moo la ko may mais ñoom duñ la ko jox mm-hmm. amul indemnité de départ à la retraite amul pension hydraulique amul ancienneté ñi fa nekkoon di liggéey deux mille ba léegi ñoom ministre bu ñëw bu recruter kenn yéen tolloo salaire amul avancement Hmm. am na aussi arriéré de salaire yi chauffeur yi di laaj mooy chauffeur yu si terne di daw yooyu yëpp wax nañ ko ministre parce que Sen'Eau dafa signé contrat ak Ofor contrat de trente cinq mille la chauffeur moom moom les dix mille francs vingt cinq mille yi Ofor ko moom mais ça fait des mois chauffeur yi kenn fayu leen ça fait des mois kay fay chaque fin du mois Sen'Eau dafay fay Ofor donc Ofor dañ koy fay mais fayul chauffeur yi. mu dem. ah mu ngi

amul dara donc les agents sont en train de souffrir moo tax milliards yi bi ñu ko déggee ñun ñëpp dañu tiit ñu xalaat ni la ñuy dugal xaalis. tey euh, bind ngeen bataaxal lan la ñu mën a xaar ci yéen justement ndax dañuy da ngeen di noppi euh, déglu lettre bi wala dafa euh, lettre bi dafa doon benn début processus. bind nañ ko bind nañ ko le 7 décembre passé. Mm-hmm. mais remercier au passage. la présidente Aïda Mbodj elle est la seule députée bu ko ci saisir au niveau de l'Assemblée nationale parce que ndox dafa sensible mm-hmm. ah ñu ngi koy déglu ñu ngi teg suñu plan d'action na ñu ngi teg suñu plan d'action mm-hmm. nous sommes un syndicat te on gère monde rural mm-hmm. bu réaction amulee dinañ déposer suñu préavis forage bu paan ñu téye ko téye loxo parce que boo damay organiser le forum mondial de l'eau au Sénégal adduna bi yëpp daje fi jox problème ndox sinon loolu bu ñu fekk dañuy déposer suñu préavis de grève forage bu paan ñu banque suñu loxo je pense que àll bi dañuy yuuxu ndox amuñu foog ku defar seen forage yéen naan forum mondial de l'eau donc le plus rapidement possible dinañ déposer suñu préavis ñu toog di leen déglu si rétat ne réagi pas uh-huh. bu état bi réagir les travailleurs vont prendre les seen loxo ci forage paan ñu taxaw waaw fa lañ toll ñu lay jaajëfal bu baax a baax